bàyyi leen ko boppam boppam la gëm ñun nag Sénégal la ñu gëm. waaw gis na également bu yàggul dara samedi bi passé Ousmane na benn giga meeting boo xamante ne fële ca Dakar Arena accès bi yomb doon mais gis nañ foule bi nga xamante ne teew nañ fa mais yemuñ sax ci foule bi mais ñun dañ doon participer ngir dugg ci li nga xamante ne mooy Dakar Arena dafa mel ni ku doon nattaat boppam di wane ne non nattuñu suñu bopp du xool toll ba non ñun nattuñu suñu bopp ñun nattuñu suñu bopp c'est même pas le genre mm. de du président Ousmane Sonko le mm. président Ousmane Sonko est d'une humilité extraordinaire non da doon xool ndax poids bi mu ngi fi ba léegi peut-être non dépassé na ko gis nga ñu bëggoon a ñëw yëpp te mu ñëw mënuñoo ñëw xam nga tey en trois jours mhm. en trois la wax soixante douze heures chrono mhm. woote ñu ngi wuy si la li la wuy si yëpp ña bëggoon a ñëw ëpp ko fuuf mhm. tey bu ko buñ ko defoon stade Ablaye Wade nga xam day dell gis nga nangu li yàlla dogal day noppal nit taal bu yàlla taal da nga ciy sànni matt moo gën nga koy jéem a fay gis nga le président Ousmane Sonko li mu am yàlla moo ko ko may xam nga lu tax yàlla jox ko ko. Mhm. ci jëmmam ji dafa fekk Sénégal toll foo xam ne il faut que à un moment de l'histoire d'un pays mu am koo xam ne pour man yàlla moo lay yónni. Mhm. pour nga ñëw am loo def loo changer mais surtout loo résoudre ci problème boo xam ne askan boobu moom la koy moom lay dund. Mhm. le président Ousmane Sonko mënoon na wàcc feneen ci Afrique. mënoon na wàcc beneen dëkk ci monde bi. mais bu dul Sénégal mais yàlla dogal. mu wàcce ku fii ci Sénégal mu nekk un leader charismatique gis nga kooku woote ñetti fan kaay leen seetaan ma te boo leen may seetaan da ngeen di fay oh. ñu ni ko non seulement dañuy fay mais yow yaay fixé sa prix te loo wax noonu la ñu wax loolu kat moo ko am ku mën na def ku mën na def ñun xëccoowuñu militant parce que ñun sénégalais yi la ñuy waxal ñun nag ñun ñooy militant yi d'accord mais ñun ñi wuyu si Ousmane Sonko ñi nga xam ne dañu gëm projet bi ñu ëpp fuuf ñiy politique ñi politique c'est infime par rapport au sénégalais te sénégalais yooyu tey ñoo xam li ñu bëgg xam li ñu bëgg ñu jiite leen ñuy roy ci ñoom bu ñu wootee ñu wuy si leen y de des gens qui ont participé du ñu sax ay ay ay militants de Pastef man ay nit dañ may woo ne madame le maire man dama bëgg a participer. ñu indi financement participatif maanaam parti politique boo xam ne au lieu que ngay dem meeting ñu lay jox t-shirt di la jox sandwich di la luweel kaar di la jox paas booy demee ak boo ñibbisee ñu neexal la ñun ñooy jël suñu xaalis di ko def ci projet bi ndax dañ ko gëm ñun ñooy jël suñu xaalis di financer suñu campagne parce que dañu jàpp ni ñu suñu ay homme politique ñun ñoo leen war dooleel et pas le contraire ñun ñaanuñu yàlla des des des politiques yoo xam ne dañuy dem di jël xaalis ci gaf ak réew mi pour entretenir une base politique au contraire ñun ñooy cotiser chaque mois di dugal ci suñu ay caisse de la plus petite cellule à l'organisation au niveau national mm-hmm. loolu Pastef rekk a ko am ñu ngi ñaan yàlla mu sax mm-hmm. en tout cas li nga xam ne moo am keroog sa giga meeting là mm-hmm. c'était pas une démonstration de force c'était un moment d'union et de communion entre patriotes entre sénégalais tout simplement et quand je dis patriote waxuma patriotisme parce que ay sénégalais yu nekk Pastef ñoo fa nekk c'est le Sénégal qui s'est réuni keroog c'est les sénégalais qui sont venus répondre à l'appel au patriotes donc quand on nag appel aux patriotes damay fàttaliku bu baax un jour may waxtaan ak sama yaay may Adja a Jéey ma koy ne dafa bëgguma ñu wax appel au patriotes moo wax ñun bëgg ñu wax l'appel des patriotes mënuma quand di dit appel aux patriotes moom ak ndeysaan monsieur le ministre biram Souleye ñu may expliquer le sens de l'appel aux patriotes suñu waxee l'appel aux patriotes tëjuñu ko ci biir Pastef dañuy woo képp koo xam ni Sénégal moo la ñor quand je vois monsieur le maire Ahmed Aïdara fi ñu toll ci enjeu bi mu xam ni dañu war a rassembler les dignes fils de ce pays quand je vois suñu papa Malick gàkku ñu am réunion keroog mu wax ak ñun wax boo xam ne ku nekkoon keroog ci salle bi sa yaram daw na da xam ni Sénégal moo soxla ay doomam donc nous lançons un appel solennel à tous les patriotes du Sénégal quand je dis patriote c'est un appel à képp ku nga xam ne da nga bëgg Sénégal gëm Sénégal nga xam ni heure bii ñu toll. ci développement wu Sénégal dañu toll ci rassembler toutes les forces vives de la nation mm-hmm. autour du Sénégal et du développement du Sénégal mm-hmm. et pas sur autre chose et que xam naa ni mm-hmm. euh, c'est dans cette pluridisciplinarité mais aussi dans cette diversité d'appartenance autour de la coalition PASTEF que nous allons construire les véritables ruptures yi nga xam ne moom la Sénégalais di xaar ci ñun donc encore une fois politique bu yàgg ba xewi na politique bii xew mooy politique bi nga xam ne moo war a defar Sénégal ndax Sénégal sonn nañ Sénégal est un pays en ruine et que suñ ci jógul li ñuy légué à nos enfants duñu gënal kon ñu ngi appeler aussi à la raison les hommes politiques yi nga xam ne ñu ngi ci espace bi ah ñu changer de méthode et d'approche ñu dem vers une approche de construction collective ku ne am nga ci sa wàll am nga ci sa rôle nga jouer ko mais de manière gentleman Mm-hmm. pas de manière euh, aussi sauvage que celle que je suis en train de voir actuellement sur l'espace public. Euh, mm-hmm. Mm-hmm. la maire. benn anecdote uh-huh. <laughs> seen parti nii lay doxee. man benn guddi laa ko xam. ñu invité woon ñu ñëw. nit ñi di way di way di way di way fekk benn journaliste nee na ma. Khadija Mahécor mu ne dafa bëgg a nekk maire ma ne ko waaw mu ne ma kii Ahmed xam nga fan lay liggéey. xam nga si ñaata lay fayeeku ma ko am ah, mu ne ma lan lay doyee maire <laughs> li nga ko gis nii xam nga ma wax sànq ne papaam affaire sociale. Mhm. mais moom moo raw kooku ne ma Mamadou Fofana la naa la <laughs> kii lan lay doyee mhm. ma ne kii dafa bëgg liggéey réew ñu toog ma ne mu ne ma ñun suñ parti dañuy tere lii parce que man dama xam moom lu muy def ci social. mu ne ah xaaral ma kii ko comme saa mu jox ñi mu ne ma ñun suñu parti amet lii defarul réew ñu génn ma ne Omar Gaye gis nga ñi dina métti nag parce que li mu bëgg dugal ci bopp Sénégalais yi dina métti de mais réew mi seen loxo lay mujjee te bu duggee seen loxo balaa mu faa jógee dina yàgg benn guddi la te moom xam na xew mi fan la woon ngir golf ah parce que loolu amul <laughs> li xew arena amul amul amul mais loolu yow kan nga ko mën a dugal ci biir boppam Khadija rek <laughs> ba mu nangu ko y'a cinq ans y'a dix ans ñu ne organiser meeting te da ngeen di dagg tike dagg tike meeting mm-hmm. tey te yow invité mm-hmm. nga indi mm-hmm. gaa yi dagg tike dagg meeting ne dafa amoon dafa am ñu bëgg bëri ñu bëggoon ñëw amuñu ticket. am na ñoo xam ne sax euh, Europe lañ jóge woon ñëw. lu ne gis nañ ko keroog. interviewé nañ ñu bëri ñoo xamante ne ñi dañ naan la France ñi Italie dëkk am na ku ma ne ko da nga ñëw par hasard tombé ma ne lii rek moo tax ma dagg ticket ñëw. c'était un moment de communion. Mmh. entre le peuple sénégalais. Mmh. mais aussi pour delloo njukkal comme je dis encore une fois aux militants. Mmh. li président Ousmane Sonko wax et aux sympathisants xam nga. Mhm. le projet bi nga xam ne ñun tey euh, yàlla daf ñu ci boole. Mhm. ce n'est pas le projet seulement de notre parti c'est mhm. le projet du Sénégal mhm. Sénégal tey moo doomam ay doomam ñoo dajaloo mhm. à un moment de notre histoire mm-hmm. bi ñu toll monde bi di changer nekk en par en évolution mais assez assez intéressante mu am ay reconfiguration yu bari mm-hmm. ñu xam ne virage bi bu ñu ko ratee c'est c'est fini pour l'Afrique mm-hmm. c'est fini pour le Sénégal donc euh, donc da ngeen jàpp euh, les dernières chances bu ngeen waroon la c'est question de dernière chance c'est tout à parti politique bu toogee ba yàgg mu daje ay militants wam waxtaan ak ñoom je pense que waxtaan bi fa jib keroog am na solo trop torop non Sonko euh, benn nit boo xam ne. Ah chance bu ngeen ah war a saisir man man man loolu bi ma koy xam defe naa man bi may dugg Pastef euh, di daan jël si wàcc. Mhm. dama daan wàcc gaari sama oto jël tata dugg ci biir di defar ay affiche Ah di distribuer nit yi dinaan leen est-ce que xam ngeen kii kii mooy le président Ousmane Sonko. Mhm. nit ñi dañ ma jàppee woon ku bu ma daan dem ci marché yi di waxtaanee le président Ousmane Sonko su ma daan def effort bi ma doon def te di ko continuer di def c'est parce que dama gëmoon ni kii c'était une chance et c'est une chance pour le Sénégal mhm. tey le président Ousmane Sonko moo ñu moo ñu tànnal suñu suñu président mhm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye tànn ko ci critères yoo xam ne lu mu wax doy nañu man Ousmane Sonko lu mu dem bay xalaat doy na ma. parce que daf ñu ko wan. ñun xëy rek topp nit parce que dañu am envie topp nit ah. ñun ay leader lañu. ñun ay nit yu am xam suñu bopp lañu. te boo gisee tey ñun ñu dugg sax ci langue politique loo xam ne mais vraiment bokkul woon ci li nga xam ne man personnellement waroon xalaatoon naa ko def ci sama àddina. Mm-hmm. c'est parce que dañu tase une personne boo xam ne dafa représenter lépp li nga xam ne ñun moom la ñu bëggoon a gis ci nit ku ñuy jiite nit ki xam ne dafa porter ay valeurs yoo xam ne moom lañ doon xaar ci nit ku ñu mën a jiite te loolu bu la ko yàlla defalee da nga am responsabilité ci li nga mën lu tuut nga ànd ak moom gunge ko ci fi nga mën mm-hmm. pour ngeen defar Sénégal mm-hmm. te je pense que c'est une chance pour l'Afrique du ma waxati Sénégal mm-hmm. parce que ñun moomatuñu euh, le président Ousmane Sonko. Mm-hmm. et l'histoire retiendra. Mm-hmm. et dans quelques années incha allah dinañ jàngale mm-hmm. la révolution patriotique qui s'est passée au Sénégal. Euh, de 2014 à 2024 ba indi euh, ce changement de paradigme avec de véritables souverainistes. des Africains yoo xam ne enfin dans l'histoire de notre continent jël nañ seen réew boo demee li xew Mali boo demee feneen ak feneen di nga xam ne y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement en Afrique et le Sénégal modèle am dafa particulier parce que autant ailleurs on a des des des des alternances militaires ñun on a une alternance